Khadim Samb communicateur traditionnel dama ko dégg démb mu ànd ak président ca Tamba ne ko président li nga bëgg a wax wax ko kon mu mel ne président dafa làqatoog moom ne ko daa am lu ma bëgg a wax te mënuma koo wax loolu c'est grave s'il vous mu ne ko wër naa kilifa diine yëpp xalif généraux yëpp d'accord nañ ñaanal nañ la dem naa kokki ñaanal nañ la ma jàpp ne loolu amul du wax joo xam ne dëgg la Xaadim Samb lu mu lijjantee boppam dong la doon wër lenn loolu bu mu ci engagé Sénégalais yi président mi mu koy wax yaakaar naa gëmu ko te waa tuuba wóor na ma ne Xaadim Samb sëñ taxaw waxu ko ne ko président Macky Sall lu ko neex na def ci affaire troisième mandat Mbaye Ablaye mbay Peex taxaw di ko dëggal loolu c'est grave loolu lu ñu war a démentir la. président waxu ko ah waxu wax ko waxloowu ko sëriñ bi waxu ko wax loo waxloowu ko. gis nañ ne euh, président Macky saal même bu ko waxul tamit euh, gis na tukki nemmeeku bi nga xam si ne moom la def Tamba ak dige yi nga xamee ne dige ko euh, te nañ ne un moo ko dese ci li nga xam si ne moo di nguur gi mu daal di mën a jeexal ak dige yu dige est-ce que bu ko waxul tamit bàyyi ko xel yow. waaw gis-gis waaw loolu loolu principe bu ñuy communiquer la. waa Benno Bokk Yaakaar yëpp parce que boo xoolee. le premier ministre bi mu demee assemblée assemblée assemblée nationale discours bu mel noonu lafa fa tenir parce que dane li ñuy wax ñun fii ak fukki at la te wóor na leen ne fii ak fukki at lu leen fii ak ñaari at sax mënu leen fee fekk président ni muy waxee day jël ay engagement ci durée bu gudd te di ñuy fàtte ne 2024 ci le deuxième mandam war a jeex président dem euh, est-ce que li muy proposé ak muy continuer ci diiru fukki at beneen président bu ñëw dana suivre dana continuer loolu xëy na parce que état continuité la mais bu buñ toggee ci moom li mu defoon bëri na ay loo xam ne vision président Ablaye Wade la woon bi mu ñëwee da koo teg fële créer beneen vision bu bees donc yaakaar naa loolu nekkul loo xam ne waxin la mais nag en tout état de cause ñu comprendre ne communication boobu nëbb na dara te ñi am xel ñëpp moo tey seen ay xel ma Euh, ñi nga xam ne tey ay acteurs politiques lañ war nañuy topp ak di suivre communication bi président de la république di mëne action yooyu comme ni ko euh, sama xarit euh, Bougane di defee di def tibb tànk tibb tànk boobu dafa war a am ci communication bi lu mu wax loo xam ne sénégalais yi engagé wu leen. ñu ñëw tibb tànk parce que njëlul jàmbur kenn du ci yàkkale parce que dinay wax loo xam ne ci mandat jàmbur lay dugg te mandat jàmbur comme c'est le président qui détermine la politique de la nation warul mën a wax ci loo xam ne euh, njëlu jàmbur la ni ko wolof di waxee